أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله يا خير منزل وقى بعزبلة وخير منزل حبى ببسملة الحمد لله على الكتاب مع الشفيع مذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته وصورا jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba Serigne bi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziare bu baax di am mbégte bu baax a baax ci teew gi ngeen teew fii ànd ak ñun liggéey bi euh, muy yéen waa Argentine Touba Touba Argentine TV euh, ñi ngi rafetlu bu baax a baax a baax a baax tey fekk si gi ngeen ñu fekk si fii ci pàkk bu tedd bi di euh, fenn ci kër sëriñ Touba yi di fenn ci kër ma Mamadou Fadil yi di fenn ci kër Seex Mouhamadul Moustapha mi nga xam ni tey euh, moo waral bis bii tey jóg muy euh, kër Seex Mouhamadul Amin Baara Mbacke moom sëriñ Mour Moustapha Fadilu euh, di wax ni rek fii ñu ngi dundal bis bi niñ koy dundalee ci mboolem kër njabootuk Cheikh Mouhamadul Moustapha Fadil yëpp ah fii nag ku ne xam na ni Cheikh Modou Seye mi nga xamante ni moom la ñuy defal bis bii kenn la woon ci njabootu Cheikh Mamadou Fadal doonoon koo xam ne léppam da koo jeexal ci Sëñ Fallu it ku ko xam itam ci diggam ak Sëñ Fallu xam ni du woon koo xamante ni jàppe woon na boppam eh, li ñuy tuddee doom ci Sëñ Fallu waaye ab taalibe bi rek la jàppe woon boppam ndax eh, na Sëñ Fallu defoon muy jaayum njureelam jënde ko ak taalibe moom Cheikh Modou saa tamit foofee rek la nekkoon dafa jaayoon léppam jënde ko ak taalibe ku mën nañoo wax ni li def ci ak tarbiya néew na ku ko def ci ak tarbiya ba làq ay ba làq ngërëmi waajuram yi nga xamante ni yëpp ñoo fi nekkoon dale ko ci Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xamante ni moom la ko Serigne Fallou tudde woon ba pare yëkkati woon ko ko jox ko nga xam ne dafa tarbiya wu Cheikh Mouhamadul Moustapha ba Serigne Moustapha gërëm ko boole ko leetul ngërëm bu leer nañ ñi mu andil ko Serigne Fallou keroog bi mu ko andilee Serigne Fallou bi ko Serigne Fallou jàngee ba noppi dañu ko ah, lii de leer na wér na itam daal ni ko waaye fii dana nga xamante ni boo fi bëggee dara noonu yi nga defal na sëñ Moussa rek nga may defal man nii mu takkaat laxasaayam tërbiyewuwaat na mu tërbiyewoo sëñ Moussa Falilou keroog ba mu koy yóbbu ba keroog bi sëñ bi ko sëñ Fallou yi njëkk yóbbu ci daara ja moo ku ñuy wax sëñ Moudou Ajara Mbacke la boole ak sëñ Naar Jenn mii moom sañ Baari Jenn booba ñoom ñu doon ay tuut tànk fekk na booba sëñ Moussa Falilou tërbiyewu ji ba ñëw te téewut mbooleem daara yi sëriñ bi fi nekkoon di daara yi sëñ Fallu fu ci nekk dem na fa ba nekk fa jawrin ay ati ati ati ati ba am ngërëmal sëñ Fallu ni nga xamante ni la ab taalibee takke la xasaay dem wuti ngërëm ci ab sëriñam ba am ko kon kooku jàpp naa ni bisam tey lépp lu ci nit def rek eh, wala nit sàkk ko ci mën na ko cee am eh, Cheikh Mouhamadul Amin Baare mii nga xam ni tey jii moo fi bàyyi njaboot gu sell gii nga xamante ni ñoo fi nekk te Euh, muy la ko commencé ci sëñ Mourou Moustapha mi fi nekk muy sëñ Moustapha mii fi nekk ba ci sëñ Abdoul Fatah mii nga xam ne ñun mooy suñ buntu di suñu féete di suñu lépp tey jii euh, yàlla dogal bis bi sëñ Baara daan ko taxawee taxawaay boo xamante ni leer na képp koo xamante ni rek euh, yàgg ngaa dund sëñ Mourou wala nga xam ko bi mu fi jógee itam ñu koy ànd ak sëñ Abdul Fatah di ko taxawee ak mbooleem nga xam ne ñoo féete ci kër gi doon ay jëwriñu daayira te sëñ sëñ sëñ sëñ Baara Thiaw mii toog rek euh, buñ ko tuddee dana mel ni yóbbaal nañ mbooleem daayira bi nga xam ne takku di ànd ak sëñ sëñ liggéey bi liggéey bi itam euh, mooy bis bi bu ñëwee dinañ def limi alquranul karim jàng xasida berndeel gan ñi nga xam ne dañ fiy ñëw te jëmmi sëñ Moodu ji rekk tax te te te ci ci loolu it lañuy lañuy la ñuy nekk kër gi itam euh, këruk taalu bi la ci ci taalu bi it la ñuy dox ndax euh, nit ku nekk li ñuy wax naan li nga liñ la li li li nga fekk juddu ci nàmp ji loolu rek nga mën a wane te ku ne xam na ni diggante sëñ Bara ak sëñ ne xam na doxin moom amoon ci seen diggante ci ak taalibe euh, ci ci ci ci ci ci ci ci ci def ko muy muy def def jëmmi sëñ Mouride ji muy muy jëmmi sëñ Tuubaa ci kanamam daan ko ko xoolee musta wàcc musta noppalu ba tey ji itam ñii mu fi bàyyi ci loolu rek lañ nekk taalibe yi ci kër gi ci loolu rek lañ nekk loolu daal noon la ñuy doxee ci biir. waaw. Euh, mooy li ma wax léegi rek xam nga dafa am euh, loo xam ni li gën a riis ci àddina bi dañ gëm ni mooy li gën a riis te euh, mooy nattuwaay bi ëpp doole ci nit mooy buñ nee nit ab taaru bi la daanaka day nekk grade bi gën a mag ndax dëgg-dëgg taaru bi mooy garaatu murid saadiq te tey buñ doon tëkk tënk sëñ baara di am lu luñ koy tuddee garaatu murid saadiq lañ koy takkal ndax xamuñu garaat bu ko gën a kawe kon nag garaat boobu rek la ñuy wax ci moom mooy euh, ku xam na ni bu ñu nee kuy waajuram dañ naan Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Moustapha kuy waajuram Serigne Fallou Serigne Fallou Serigne Touba waaye nag téewut loo nee noo nee waajuram wa defoon maamam ja defoon ko muy Cheikh Mouhamadou Fadal sëñ Baare ci lool rek la nekkoon léppam la jaayoon jënde ko ak taalibe loolu moo doxoon digganteem ak Serigne Moussa Dieng ci ngërëm itam la liggéey ba ba wàcc ñi fi bàyyi ci lool rek lañ nekk waaw bilahi min seytaan rajim bismillahi rahmaan rahim jërëjëf Serigne Touba jaaraama Cheikh Abdoul Fatah mm. ñoo ngi leen di siyaar bokki jullit yi bokki taalibe yi leen xamal ne bis bii ñu doon def mooy bisu Cheikh Modou Moussa Falilou ñu ànd koog njabootu waa kër Cheikh Modou Moussa Falilou gépp ànd koog daayira bi nga xamante mooy daayira Miftahoul Mouna bu waa kër Cheikh Abdoul Fatah xam ne liggéeyal si Modou bi sa jëm moo ko tax a jóg màggalu si Modou gi ñoo ko gàddul seen bopp di ko def kon nag maa ngi siyaar bu baax a baax a baax di leen siyaar yéen mbokki taalibe yi ñëw yëpp di ñaanal suñ borom defal ci tawféex defal ci lu kawe su njort te xam ne ñun amuñu lu dul Cheikh Modou Moussa Falilou doyloowuñ dara lu dul si Abdoul Fatah moom di siyaaru mbokki taalibe yi ci nekk ak waa daayira bi nga xam ne ñoom lañ ko bokkal ak mbokki soxna yi nga xam ne ñu ngi ci biir ñëpp di di ñaanal suñu jëwriñ suñu xaadim Mbàkke ak suñu bàjjan bi ñu àndal muy soxna jaara xam ne tey jii daayira bi fu mu taxaw moo ko fa yóbbu ngir jëmmi Cheikh Modou Moustapha Falilou maamam xam ne loolu rek moo ko ñor fu mu mën di nekk tamit ci loolu lañu daan loolu lañu daan soññi ne mbaa yéen a bi waajal bi ci Cheikh sa Moustapha Falilou kon xam ne loolu ñor na ko di leen ñaanal ñu yàgg fi lool ak seen mag ju baax ji di ñaanal Cheikh Abdoul Baax mi nga xamante ni lépp sëñ bi la waaw moom moo jiite woon wax ji di doon ci wax wax kàddu yu rafet yooyu ñoo ngi koy ñaanal moom it tawféex ak ko ci barke Cheikhul Khadim waaw di sant mbokk mbokk bi yëpp daal ñoo ngi siyaar ñëpp di jégalu ñëpp di baalu ñëpp di sant bu baax a baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nii ñëpp di ziar bu baax. Euh, di sant bu baax nag ci teewaay bi ngeen teew fi waa Touba Argentine TV. di sant bu baax ci déplacement bi dérangement ñoo ba fii ci kër suñu Baba Bousso nga xam ne mooy suñu waajur di suñu sëriñ di suñu di lépp sant bu baax nag euh, ci ci teewaay bi ci kër gi euh, ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax suñu suñu kilifa fii si kër gi si Abdou Fatah nga xam ne suñu mag la suñu xarit la suñu sëriñ la suñu suñu suñu suñu suñu suñu soppe la suñu jëwriñ la suñu lépp la ndax bu ñu demee ba ba mën li yëpp moom la moo ñu moo moo ñu téete moo ñu moo ñu teg ci yoon moo ñu wan fi ñu war a aw wan ñu li ñuy waxee jàngal ñu si lépp ndax bi fi borom kër gi di jógee di sëñ baara boobu ay tuut tànk lañu kon nag mën nañ naka bu ñu nee ba toll nii ba ba am luñ mën rek donte bëriwul sax ah, mën nañ koo sante ndax moom la di sant bu baax a baax a baax a baax ah, di sant itam ñi teew ci màggal gi yëpp rawatina ñi nga xam ne mbokki taalibe yi nga xam ne maanaam dañoo bàyyi seen yitte yëpp ñëw ànd ci màggal gi ànd ci liggéey bi jàpp ci bu baax a baax a baax def seen kem kàttan nga xam ne duñ xaar kenn lañ soññ ñoom ñoo soññ seen bopp ci liggéey bi di sant bu baax a baax a baax ñu fi teew ñëpp ñëpp rawatina nag yéen ñi waa Touba euh, Argentine TV sant nañ leen bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di ñaan <clears throat> taxawaay bi gën a yokku barke Sëriñ Touba te euh, li am solo rek mooy ak taalibe bi te fii moom noonu la dañuy doxee foofu nii lañuy doxe ah, loolu lépp lu ko sënte suñ Tuubaa nag waaw ndax borom kër gi moom ñun ñëpp la teete ci ak taalibe jàngal ñu ak taalibe wan ñu nu ñuy nu ñuy nu ñu doxee ci yoon suñ Tuubaa gi ba ñun ñi ci gën a nekk tu tànk kon nag ñu ko sante bu baax ba sant itam waa daal bi nga xam ne maanaam maa def seen jëriñ ma leen ko sante bu baax nag ci cër bi nga xam ne delloo nañ ma ko ñu àndandoo di liggéey liggéey bi kon nag di ñaan rek yaa na nañ ko téye ay at yi at màggal si moom safal yaa ngi ay ati at yaa ko ànd ko màggandoo ci barke sëñ Touba barke sëñ Moussa Dieng ñi nga xam ne moo a lii yëpp sant nañ bu baax a baax a baax a baax jërëjëf.